ko doon jàmbat ak ngawti ngawtee fu nekk a jooy mën ngeen a fompaat seeni ronkoñ ndànk te xam ne lu ni mel moom jeex na fi moom kay deltu ginnaaw dëgg rek la def ki ñu quarantaine këram te mu jël wér yaramu askan wi jëndee ko koom-koomu réew mi moo xëy amee xët wu njëkku journal yi las la turbine vox populi l'observateur le quotidien sud quotidien l'enquête les échos la turbine ñoom ñëpp ñoo xëy amee seen xët wu njëkku yéene kaay ak président Macky Sall laas nañu Macky ngàlli na dëkk koy fiyel ne daa far dindi lépp rek moom kay daa ŋàlli lépp rek sànni li mu def ku ko ci far ngir bëggub doxakub tambaamalu yaa ngi nax sa bopp ne Sénégal moom jamono ji ku ko tëjul waroo koo tijji du samay kàddu nañ àndandoo yër xër wu njëkku libération journal bi ne ñu Macky kay xanaa jamono ji daa amul ay conseil rek ndax ci jamono ji moom Ndakaaru Thiès moom ñooy jongante woppi covid 19 ji ne bu dee Dakaaru moom fi mu ne nii may wax ak am na moom am na lu toll ci fanweeri juróom ñeent ci ay cas Vox Populi ne ñu moom kay pourcentage bi egg 92 pour cent wópp tëlaw moom kay ku yebu yërëm leen rek les éco ne ñu moo taxi nag général Macky jël na ay matukaayam fas yéene naa jël lu toll ci 500 médecins moom kay ku yebu rek demande ay yemu ca fas yéene jëlaat tamit lu toll ci 1000 agents de santé lanke nangoo wax ji ca moom ne li ko jaral rek ku ko jaral nag ndax ri économie réew mi nga xam ne mi ngi ci guddi gu bës a tegul te ku ko mayul loxo mu nërmeelu vox populi mel na kuy fel gémmiñam ne ko moom ko lii di couvre du ko jàmbati ci ci mim réew bu avion yeeg roppalaan yi moom dinañ naawaat li ko dalee 15 juillet bii ñu dëgmal lii kay mooy xanaa lu golo xam rek na ko boote doomam ñi xamatul lu ñuy boote seeni doom ndax topp doroog bu bon bi te ku leen mayiwul yàqu ñoo amee page 9 bu l'observateur yéen leen xët wu njëkku journal bi ñu fekk fa kuñ naan musolo baro baro mi xëy di a ñax jigéen ñi ci mbonte gu bon gi ñu jugtee mu amee xët wu njëkku l'observateur baro nee na jigéen ñi moom mën nañoo def lépp lu manti doon waaye lii dorog moom mën nañ ko fee bàyyi te xam ne du wàllu jigéen ca ndax nee na dorog boobu ñuy jëfandikoo bu ñuy sëy moo nar a tukkal jamono ndax bu yees teq génn na journal bi ne ñu nañu koy defee ku ko bëgg xam na yéen page 3 bu l'observateur ndax yàmbaa la ñuy boole ak pon ak xeme ñi door seen loxo ci ëkk te ku leen woowati anniversaire duñu demati ñu amat ñu amee xët wu njëkk la turbine yéen leen xët wu njëkk journal bi fukki xaleek ñett la ñu dëkk fële ca waaru waaye di quartier bu nekk ca yëmbal nord ñoo demoon ab anniversaire niki démb waaye seen anniversaire boobu ab hôpital akub dëj la mujj soppiliku ñoom ñëpp a tëdd rek daanu la sim te li leen ko teg du lenn rek lu dul ji bisaab bu ñu naan ay waay moytu leen bisaab yi kon ba ëllëg ak jàmm